salaamaaleykum nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude te képp koo xam ne nii abonné goo ci chaîne bi duñ def lu dul wax la nga abonné activé cloche bi bu ko defee benn suñuy vidéo dootu la rawati mais surtout euh, ngeen di liker di commenter que partager loolu ngeen ñu mën a euh, soutenir bu baax a baax xibaar gi nag dañ koy jiitaleeg euh, ki ñu naan Youssouf sabali mi nga xam ne tey jii da doon football dafa war a futbal sax match moo ki ñu naan Atlético Madrid Betis Séville contre Atlético Madrid ci Liga espagnole boobee leen annoncé na Youssouf Sabaly match boobee dina ci titulaire mu doon loo xam ne c'est une bonne nouvelle di ko xaar mu def prestation yu am solo te it mu bañ a blessé nag blessure sonal na ko loolee yàlla na ko yàlla dafal jàmm musal ko ci seytaane lafal ko cet loolu daal lañ ko mën a ñaanal dañuy euh, jubal directement ci équipe nationale Sénégal euh, Bitchoko bi nga xam ne tey jii dañ doon amal seen deuxième match euh, ci Coupe d'Afrique Bitchoko bi nga xam ne mu ngi am fële ca Mozambique démb nag di fàttali ñoo dóor 10 buts à 1 club équipe nationale bi ñu naan Ouganda at muy Égypte nga xam ne ci 2022 euh, bi liñ ko dóor ci match war naa ëpp 5 ba 6 vraiment euh, moomee nag la euh, Sénégal dóor ci seen deuxième match 6 buts à 4 ci noonu nag Sénégal qualifié na directement ci demi-finale bi nga xam ne am na biir ca fële ca Mozambique di wax suñu international sénégalais yi nga xam ne te illustré wu nañ dugal nañ di ko jiital ci Mame Baba Thiam fële ca Turquie dugal na vraiment gis nañ ne nag ki ñu naan Mame Biram Diouf naka na Mbaye Diagne di fàttali na. bi euh, sixième biom ci saison bi tey ji nag Modou Loum Ndiaye moo dugal premier biom euh, ci saison euh, ren bi ci club bi ñu naan Reading nekk fële ca deuxième division anglais mu doon milieu jeune boo xam ne nii actuellement mu ngi amal yaroo di évoluer wu dans l'ombre ñu bëri nag bàyyi ñu ko xel mais mu ngi def lu am solo ñu ngi xaar daal ba xam nañu ko mën a apporter l'équipe nationale Sénégal seet nañ nag sunu lions yi surtout attaquants yi bu compétition si dañuy mel ni ku xabtalu bu ñu doon def benn fukk la ñuy def da ngeen di gis ñuy dugal comme pas possible ci noonu nag convoqué waaye bu ñu demee ba ci compétition boobee dañuy commencé réeree mbir loolu moom jaaxal nañu as tuut di ñaan yàlla nag yàlla defal ñu ci jàmm di wax ci ki nga xam ne sax euh, jamono ji mu ngi ci forme di dugal nag muy mbay ñaa nga xam ne tey clubam euh, vraiment moom moo dugal euh, première bi bi waaye dañ leen mujjee dóor deux buts un mën naa ni Mbaye actuellement mu ngi wane boppam fële ca Auxerre nekk fële ca Ligue 1 française ñu ngi xaar daal la suite nan la war a mën a apporter en tout cas daal Aliou Cissé dina joxe 40 joueurs liste 40 joueurs FIFA bu ko defee ci 40 yooyee boobee na ci génnee 23 ba 26 joueurs ngir ñu war a mën a dem coupe du monde boobee ci 23 ak 26 duñ génn ci 40 yooyu mu doon loo xam nag Aliou Cissé am na maximum de temps pour jël temps xool bu baax a baax li nga xam ne nar na koo def ci ñi nga xam ne ñoom la war a sélectionner pour en cas de blessure et tout kon nag c'est à lui mooy coach bi na ci bàyyi xel bu baax a baax dañ koy terminer ak sunu international sénégalais bii di Ismaïla Sarr moom ne tey jii dafa dugal euh, bii bu xam ne ni euh, vraiment bi bu rëy euh, tey Watford 4 buts à zéro tour Ismaïla Sarr nag moom it bokk na ci euh, festival boobee ci fête bi ba dugal la sixième biom ci saison bi euh, mën naa ni euh, actuellement moom it mu ngi ci forme cinquième bi du moins Ismaïla jamono ji daal moom Sadio Mané Mbaye Niang ak ki ñu naan Bari Ndour ñoom ñoo jiitu ci ak Ismaïla Iliman Ndiaye ci meilleur buteur sénégalais yi ci Europe bee nga xam ne fa lañ nekk di ko xaar moom it li nga xam ne mu ngi koy def fële ca Watford ko équipe nationale Sénégal nag soxlaa nañ ko loolee bu dëgg dëgg dee dëgg gars loolu moo nekkoon xibaar gi leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee ngeen continuer di abonné ci chaîne bi activer cloche bi ci ñu ko defagul mais surtout ngeen di liker di commenter que partager ba beneen yoon ci yeneen xibaar